ñun jigéen Casamance ñu toog fii yëpp dañu am lu ñu metti lu ñu metti mooy lan suñu doom bu ñu tuumal tuumal biñ ko tuumal moom ak ñi mu àndal ak ñi ko yóbbu bu soobee yàlla bos ni ki tey lekket ñu kawar yu weex yi Adji Sarr bu ko loolu dégloo suñu baat yi ngeen dégg ko ci àll fanaan fi mu nekk ni nekkuñu ci kër de gisu leen benn kër cosaan bi foofu la ñu ne Adji Sarr ay mbokkam nañu lal duñ koy siyaare ak ñi ko yóbbu dem nëbbu ko pare naa ci loolu sonal Macky abal ñu Macky ñun dañoo sonn ci yow Macky te nga dem Macky depuis bi nga toogee kenn koy laaj sa ak laalu Ousmane Sonko man dama yaram Macky suba Macky xam nga dafa xalaat ne li Ousmane Sonko la ko def moom xamul ne xuut mi day lang Ousmane Sonko mi bu ko ko laal bu ko xalaatal lu bon ak ku ko taxaw ne Ousmane Sonko man dama ko xool bu bon nee naa sanam mi be ka wonoor ak Ousmane Sonko wa aw panu ka perata kiya ku baax be fatiya kenn omu de jakano ken ala kujole fogola nona e ula nyanyi la ula sa o lunena nonu ne dala nyi la ume bara nam na no Le viol qui a tant fait, souffert les femmes. Les femmes sont en train de souffrir dans le monde à cause des, victimes de viol. Et toi, tu n'as rien à faire. Tu viens accuser Ousmane Soko, un fils digne du Sénégal. Tu seras la seule, tu seras la dernière à banaliser le viol. Tu seras la dernière à banaliser le viol. Manda, Miche, Manda,